ñun bi ñuy organiser ren journée de l'arbre le 7 août donc ñoom ñu invité woon leen pour ñu ñëw ànd ak ñun ci programme boobu ñu waxoon ni ñu ah ñun de dafa am projet boo xam ne bi ñu ngi koy dérouler muy des arbres pour reverdir l'Afrique ñu ngi ko doon dérouler nag ci département Guinguinéo ak Kaolack waaye eggaguñu woon Nioro ñu bëggoon nag ci journée boobu ngeen profité en tout cas wax ci ak nit ñi ñu xool ndax intéressé na leen wala intéressé wu leen léegi bi ñu defee loolu léegi ñu def ko ñu gis ni que nit ñi vraiment affaire bi lu leen yitteeloon la ci la man ma am benn idée ni lii pourquoi duñ ci def benn karawaan ci ay temps bu gàtt rek ñu am ci ay communes yu ñu dem waxtaan ak nit yi mais commune bu nekk ñu dugg fa ay dëkk waxtaan ci ak ñoom dëkk bu nekk ñu jéem a xool nan lañ fay am ñaar wala ñetti producteur ñu ànd ak ñoom seen tool xool problématique bi vivre ko xool lan moo ci war a nekk taxawaay léegi nag ci programme boobu moom lañ nekkoon di ko dérouler nii problème boobu nag biñ ko ñun bi ñu amee xalaat bi ñu wax ko vision mondiale ñoom aussi ñu rafetlu ko trop ni loolu ñoom lu ci nekk moyen ñoom dinañ ko def pour que en tout cas euh, ñu mën ko dérouler fii pour xool ndax waa Nioro ñoom ndax programme bi intéressé na leen wala intéressé wu leen. nekk am na benn taxawaay boo xam ni war nga ci am muy population bi muy collectivité territoriale yi muy état bi léegi nag ñooñu. ku li ku ci deful li nga war a def rek résultat yi ñu soxla duñ ko am loolu moo tax nag programme bi vraiment mu nekk programme boo xam ne bii bu am solo la te ñun ñu di ko rafetlu trop di ci remercier vision mondiale bi nga xam ni ñoom ñooñ ci jàppale pour ñu mën koo taxawal di ñaan également partenariat bi mu nekk am solo parce que waa Nioro lii soxla nañ ko donc ñun ñu ngi leen di ñaanal ñu am beneen phase boo xam ne bii dina ñëw dugg ci ñooro vraiment dugg ci commune yu bare dugg ci dëkk yu bare pour que nit ñi également mën a profito pour en tout cas defaraat seen seen alam